8 heures mu ngi euh, doog a jot li ñuy def léegi rek mooy jàll ci euh, xibaaru suba gi. ngërëm ñeel leen ci ànd beeg télévision Futur Média xibaar yi ñuy beeko léegi ak Fatima Ba njëkk a waxtaane coowal Karim Wade mi nar jàkkaarloo ak waa xëy waaw Pape Cheikh comme ni nga ko waxee Karim Wade ñu ngi koy xaar tey jii ci cré yi loole ngir rek ñu mën a xool ak moom li nga xamante ne parquet bu Paris yónnee na ko mu nekk ay bijoux yoo xamante ne euh, soxnaam bi génn àdduna moom moo ko moomoon waaye itam yeneen i objet yi nga xamante ne moom Karim Wade moo ko moom mu nekk nag ab mbir moo xamante ne ay avocat ñoom ñaawlu nañ ko kenn ci ñoom di maître Ciré Clédor Ly daal dina xamle ne convocation boobulee euh, da sax mel ni rek ab farce moom noonu la ko gisee ndax après ne ci njëlbéen ay milliards yu bëri lañ ko doon toppee moom Karim Wade di wàcc di wàcc tey bay xool ay objet wala boog ay bijoux yoo xamante ne soxnaam moo ko moomoon te ñu dencaloon ko ay doomam moom maître Ciré Clédor lii dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Adiatala ci ñeenti junni milliards par ñëw di wax nit ñi loo xam ne que motul sax euh, nan la tuddati juróom fukki million loo xam ne que nan la tuddati ay jaaru nopp ak ay montre ak yaakaar naa ne yàpp ab réew warul weesu loolu te looy du wan na ne que ñiy jaaxle nañ te it la ca doy waar moo di mbir mi euh, dafa xaw a xaw ma nu ma koy waxee ci wolof euh, su fekkee ne léegi nit ñi seeni coffre-fort ak seen lépp maanaam buur dañ ko bàyyi mu am sañ-sañu di dajji coffre-fort yi di dajji coffre jigéen ñi di di di yërndu seen saak yi ñuy yor foog naa ne loolu réew mi euh, wàcc na daal ci suufu suuf Karim Wade dañ ko war a jox ab liberté provisoire loolee di gis-gis maître Sey moom jàpp na ne doomi njiitu réew ba woon ni ñu ko jàppee ci yoon du dara loo xamante ne euh, jaar na yoon ndax ba fi toll nii du dara loo xamante ne mën nañ ko indi ci ay firnde ci liñ koy toppee maanaam am am gu lewul la bokk gisul li waral ñu koy téye ci kaso bi moom maître Sey dañuy teewlu ay kàddoom ci micro moo di Gaye Thierno Laurent Mendy tey dañ ko war a bàyyi bàyyi njëgun mooy li ñu wax liberté parce que ci justice liberté mooy principe jël la dugal ci kaso pour enquête la mooy exception loi bi nga xam ne mooy CREI moom lañ mu nga xam ne moom la ñuy toppee Karim Wade dafa ne bu ñu la jàppee di la enquête pour seet sa alal foo ko jëlee bu ñu lay enquête ba mu mat juróom-benn weer bu ñu la attewul day la war a bàyyi ba ñu àggee ci juróom-benn weer yi dañu waroon bàyyi Karim war wala ñu atte ko bàyyiwuñ ko ñu dem inventé beneen délit dooraat ko beneen mandat de dëpp pour téewaat ko ci kaso je crois que loolu yoon waxu ko yoon soxorul du la dugal ci kaso pour dara su la dugalee ci kaso pour enquête la dafay fekk dëgg gi la ñuy xool bu ñu demee ba nga xam ne bu ñu la bàyyee doo fexe ba dëgg gi du feeñ fi dëkk xam nañ ko bu ñu la kookee nga ñëw ne présent dañ la war a bàyyi ku moom maître Ousmane Seye yëkkati yile kàddu ci ndaje bi ñu amaloon ngir rek dëggal diggante mag APR ak coalition bi di horizon 2035 euh, liñ ci jublu nag moo di jàppale président Macky Sall ba tabaat ko ci wote présidentielle yu 2017 moom maître Ousmane Seye di artu ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ci mouvance présidentielle yi kenn koo xamante ne rek am nga xalaat bëgg euh, jàkkaarloog président Macky Sall ci wote présidentielle yu 2017 moom mu ngi leen di artu ci ndaje bi ñu amaloon démb moo di kay Thierno Laurent Mendy teew nañ fa. dankaafu ngir bu ko kenn wumpalee ñi nga xam ne ñoo ànd ak APR amul kenn ku ci yoon may nga daal di samp sam dënd jëm ci élection 2017 yi. c'est difficilement pensable. d'avoir accompagné le président. li xel mënu la nangu moo di nga lëkkaloo ki nga xam ne moo di njiitum réew mi mu jël ndomba tànk yi gën a kawe daal di la koy takkal ba noppi nag bu ñu yeggee ci bilan yee nga rocc ci say loxo taxawee fële loolu nag tey jii la ñu koy leeral ku nekk wax fan nga féetee balaa ñoo yegg ci la nga xam ne moo di élection yi. et nous prendrons nos dispositions de façon à édifier ceux qui s'orienteraient éventuellement dans une telle perspective. li ko waral directeur cabinet politique bu njiitum réew mi nekkat mbiram éthique moo ci daal di lalu te itam candidature Macky Sall rek la ñu daal di nangu te coalition Horizon 2035 moom moo ko daal di boot. dans l'avenir leneen li ci des moo di kat tey jii la ñu koy sumb ngir nag falaat njiitum réew mi ci atum 2017 nit ñi sax dinañ na sori na waaye liggéey bi moom boo xamee politique xam ne door ko jot na. mu nekk mouvement goo xam ni mu ngi juddoo ci lëkkaloo gu am ci diggante coalition pour l'émergence ak alliance pour la république. qu'il signerait un partenariat avec le tey jii li ñu fi dajalee moo di xaatim ab déggoo suñu digganteeg APR ndax kat falaat njiitum réew mi li ko waral nag moo di sànc yi nga xam ne daal dina koy sumb. ku ci nangu dëgg ku nekk war nga xam ne Sénégal mu ngi suqaliku te itam liggéey yi mu sumb faw ñëpp jàpp ci ngir mu daal di sotti. pour y faire face et élaborer des projets porteurs de sortie de crise. bokk na ci li tax a jóg coalition horizon 2035 daal di jàppale njiitam réew mi ngir mu mottali liggéey bi nga xam ne la fi daal di sumb ngir lépp loo xam ne ni ay chantier matt ba Sénégal daal di suqaliku. Mody Gueye ñu koy jaajëfal ginnaaw ñetti fanu grève liggéeykatu gox-goxaat yi maire bu ndakaaru yëkkati na ci ay kàddu xalifa Sall ne yenn communes yi dañoo amatul rek ab doole ngir jël charge bi nga xamante ne moom la seen i euh, maire yi euh, am waaye itam fay képp koo xamante ne da fay liggéey loolee la jàpp ne moo waral crise bi ci am li mu xam ne itam bokk na ci di euh, xamle ne nguur gi joxu leen benn koppar loolee ginnaaw la ñenn ci yéenekaay yi ci àddu woon moom Khalifa Sall. ñu teewlu ay kàddoom ci micro Codé Ndiaye. saa yi ma waxee rek gars yi dañ naan day sànni xeer mais man dëgg rek laa bëgg dëgg rek laa ñemeen parce que dama yaakaar mooy li am solo lii lu ñëpp njortoon la lii ñu def am na ci fukki commune yeeg juróom-ñeentu Dakar am na ñu ko attan am na ñu ko attanul loo dimbali dimbali du dem dama lire nag ci benn journal ñu ne état bi débloqué na 700 millions. heureusement sama rakk di sama xarit ma di ko félicité ndax honnêteté am courage am muy Yakham ba ma ko ko waxee dafa ni ma danaa corrigé te corrigé na 700 millions yi du état bi moo ñu ko jox état bi jox ñu dërëm dërëm la ñu état bi jox xaalisu maire bi la fonds de dotation depuis toujours du ren du daaw depuis toujours parce que lu loi wu 96 moo ko def niñ ko calculer mooy que ni ñetti at la ñuy dajale xool recette yi def moyenne bi muy deux milliards quatre cent lu et lu mairie Dakar war di verser commune d' arrondissement ak acte trois bi amatul fonds de dotation léegi maire yi communes yi ñooy jox ville de Dakar mais pour 2014 janvier 2014 ba 31 juillet 2014 commune d' arrondissement amoon donc ville bi dafa war fay loolu commune maître Oumar Youm di jëwriñ bi ñu dénk wàllu collectivité locale yi moom it àdduna ci moom nag xamle na ni euh, ñooyee liggéeykat li ñuy ñaxtu loole yëpp nag euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo di maire yi la ci joxoñ baaraamu tuuma jàppale ni nguur gi nag dina def seen kéem kattan ngir rek indi ay saafara ci yooyee jafe-jafe waaye maire yi nga xamante ne ñoom ñoo toog ba fayu ñu seen liggéeykat dàkk ñu sax teg leen ay daan moom maître Oumar Youm ci ab ndaje bi mu euh, doon jiite nañ fa fekk Aminata Mbaare Sow Modou Diop ministre bi ñu dénk wàllu gox goxaan yi di andi ay leeral maître Oumar Youm jàpp ni gouvernement bu Sénégal takkul benn yoon ci retard bi nga xam ni am na ci euh, payub salaire ñenn ci agent yooyule ay caaxaan ak ay euh, firange ak bañ a ay responsabilité jural travailleurs yooyu ñu bañ a fayeeku seen salaire état bi li mu waroon def en tant que état def na ko ba mu mat sëkk bi ñuy def réforme bi ba ñu war toll ci mise en œuvre président li mu jëkk a wax mooy ñaari recommandation fort salaire yi fexe leen bu ñu fay ko te bu mu tardé benn emploi consolidé bu ñu ko déconstruire. moom mu jàpp ne mënul comprendre doxalin maire yi nga xam ni nanguwuñu génne salaire ñii di seeni agent changement statutaire bi ci commune yi ak ville dafa indi transfert de personnel de ville aux commune waaye indi aussi transfert d' argent des villes au communes tey bu ñuy xayma ci trois mois yi ñuy dëgmal communes yooyu ñu ngi jot deux milliards cinq cent millions de francs CFA. nga am crédit deux milliards cinq cent am débit ou charge trois cent cinquante mille trois cent cinquante millions war nga mën a fay. maître Oumar Youm dem bay xamle ni képp koo xam ni teguwul ci yoon du ñàkk ñu teg la ay daan loolu nag ñu sukkandiku ci code de la décentralisation. du ñu bàyyi kenn. ci réforme boo xam ne territoire bi yëpp la ëmb ñu bëgg ko yemale ci biir Dakar rek ay coow ay xuloo ay wax yoo xam ne amul bopp amul genn loolu duñ ko d'accord mën nga kon ne nag di critiquer waaye bu jëfe jotee yoon da ko war a jëfe loolu la ñu tuddee préalable de l'exécution ministre des collectivités locales nag mu ngi doon présider benn atelier de restitution ci programme bi nga xam ni mooy takk Sénégal te mu yëngatu ci lépp lu jëm xeex changement climatique yi ci gox yeeg goxaat yi Aminata Mbaare Sow ñu wax ci compteur yu bees yu lekk ñu leen di duppee compteur intelligent indi na nag coow lu rëy ci Grand Médine askan wi xamle nañ ne léegi seen facture dafa doublé dem sax triplé yokk bu baax a baax lu nu mel nag ñu koy ñaawlu ba tax na xamle nañ ne duñu fay yile facture loolee ginnaaw sax ab menace boo xamante ne njiital bu lekk def na ko léegi nag lu ñu bëgg sax moo di Pape jang tekki ndomba tànkam ci bopp société boobule Faty Dieng Modou Diop coow li bari woon lool ci Grand Médine ku xool seen xar kanam xam ne mer lañu àndal lu waral mbir yi compteur yu yees yi leen fa lekk dugalal. compteur yi ñun dañ ne baaxul parce que compteur yoo xam ne boo ko xoolee bon bu courant bi coupé day day tàkk di continuer di tàkk bu courant bi fayee nga gis ko mu continuer dàkk loolu moo tax ñun dañoo am problème sérieux. d'accord ñu ci fiabilité bi. c'est les propos du directeur général de la Sénélec mais ñun d'accorduñ ci fiabilité compteur bi. après rapport la publier ne les compteurs sont fiables mais demandé nañu ñu def ay amendement par rapport à ça. ànd ak mbetteel askanu Grand Médine mere loolu waa Sénélec jamono ji nag neenu facture yi duñu ko fay wala bokk du guddi yi nu toll. ñu ngi leen di xaar di suñu bakkan lañ ci gaar suñuy facture ñu fay dara duñu fay dara dara duñ ko fay. sama jëkkër chaque jour bu xëy xam nga loo facture dafa war a wàññeeku mais warul yokk man de suñu facture buñ jox sama jëkkër man ke turaalee ma denc amul droit coupé bu doon liñ daan indi lañ indi normal dañ koy fay niñ ko daan fayee mais liñ si liñ ko doublé nii duñ ko fay coowee bëri rek mais buñ ñëw di ko coupé dana de. ñoom ñi sax fa ñu nekk woon dugguñu fa ne ñu compteur yu yàgg ya la ñu bëgg ñu indilaat leen ko ndax moom la ñu xam te moom la ñu wóolu. compteur yi même buñ ko dindiwul facture yi daan ma daan marqué lam daan marqué parce que indi facture yu bees. compteur yi bees facture yi ñëw gën a yokk li nga daan fay loolu du yoon. li ñu bëgg mooy travaux yi nga xam ne dénk nañ ko la commission de régulation ñu continuer travaux yooyu ñun def nañ confiance commission de régulation bi ñu ngi doon liggéey joxe nañ pré rapport ñun dinañ amandé li nga xam ne d'accorduñ ci. njàngatu commission de régulation bu secteur de l'électricité nag moom moo waral coow li ndax daf ni compteur yooyee compteur yu baax la askanu Grand Médine du ci dal ba tax na sax ñuy sàkku ci njiital Senelec mu abale yi Dieng ñu koy jaajëfal Pape Cheikh xanaa ñu jeexalee koog maître Sidiki Kaba di jëwriñ bi ñu dénk wàllu yoon moom nag dina amal conférence de presse ni ci àjjuma ji ñu koy xaar nag ci laaj yu bëri bokk na ci coowal mittal waaye itam tabb giñ ko tabb ca cour pénale international ñenn ñi sax doon xamle ne méngoo wut ak place bi mu xam bi nga xamante ne yor na ko jamono ji ci guvernement bi. lépp lu tukkee ci jotaay boobule di ngeen ko mën a euh, dund ci euh, suñu ay programme ci jotaayu xibaar yi bu ko defee ngeen mën a xam euh, fan rek la. jëwriñ joojee euh, di euh, maître Sidiki Kaba jëm ak ñun tey cay kàddoom yu mu fas yéene génnee ci euh, jàkkaarloom ak taskatu xibaar yi jërëjëf Fatima Ba